يا خير في الأتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد بوكي جريدي بوكي تاريبي نيغي لين دي نيو دالين شيال دين بالاخ دين بالاخ جيتال في النيو اك سونو سياره تي كيغا خا مو في نك سيرين توبا للشيخ محمود المنتقى حفظه الله ورحاه وأطابقه di nuyu sunu kilifa bopp di sëriñ ci Amadou Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci bopp kërub Seex Sohaybu Mbacke ñu koy siyaare bu baax te di ko ndokkeel bu baax te di ko ñaanal moom itam yàlla yàggal ko fi ci kanam mu njaboot gi dolli ak wéram ba lim bëgg a liggéeyal sunu waajur mu def ko ni mu ko bëggee di siyaare mboolem ay rakkam nga xam ne mooy njabootu Cheikh Souhaïbou di siyaare Serigne Abdou Samad mi nga xam ne mooy daf yebal di kenn ci ñun di sunu xarit di sunu lépp di feeñal Cheikh Souhaïbou Mbacké feeñ na sax moom waaye ni nga ko waxe bari nañu ko xamut ba muy toog dafa yàgg kon nag ngeen di feeñal ay melo ak i jikkoom ak i jëfam ba nit ñi mën cee jariñu lu am solo la Cheikh Souhaïbou bu nag moom ñun mooy sunu lépp man moo ma tudd tudde ma Cheikh Sidi Muxtar mu di moom gaawaan ba ma tee jàng itam moo ma dalal arxuwaan ndiir soo maa jox sëriñ jiiri mbàkki moom si Abdul Ahad boo fekk na yoratul ba ma ñëw moom fekk na yoratul daara ji di yor nit ñi di continuer waaye mu ngi mu ngi dégloo nag moom daana ma déglu tey mu déglu wet mu déglu nafar mu déglu bind waaye boobu nag yoratul kenn moom ci boppam yaakaar naa suñ Moustapha ak suñ Cheikh ñoo lu mujjee yor ci yor ngoo xam ne moom lay déglu lépp waaye man ba ma fay dem ay teew mo yor daara ji moo koy taxaw xam-xam itam mo ma ko dalal te te si xar sama kër sam sama soxna su njëkk moo ko indi ko ci kër gi kon man dara gën mo suñ lépp te noonu mu ko defee ci man nak noonu la ko ci Serigne Cheikh def ko ci Serigne mustafa def ko ci Serigne fallo ñun njaboot Serigne Abdou Khadir ni ngi koy wax rek ku sëñ Moodu sëñ Saay bu mooy la tudd jabar sëñ Saay bi itam noonu sëñ Seex sëñ bu Xaadir moo la tudd noonu lañ meloon seen diggante doonoon kenn ñu leen wax bokk gu ne ak xarit da ci am waaye ñoom dana doon ay xarit mu doylu ko ci seen mu doylu ko ci léppam suñ lépp sëñ bu Xaadir mosu ci dugg looy wax looy day demal ci Cheikh Souhaïbou muy koo xam ne ku sonn ci nit ñi la rek man ba fay dem 69 laa fay dem booba waa ko Sëñ Tuubaa yi laa fekk waa ko Sëñ Abdoulaye ne yaay kii ñoom sëñ Siidi ak sëñ Moxtaar sëñ Kiimaan ñëpp a fa woon jaboot Cheikh Abdoulaye bi ba ña nga fa jaboot Cheikh Saliou ña nga fa sëñ Bas boobu moo fa nekk jaboot Cheikh Mourtala ña nga fa njabootu soxna moom mi ña fa njabootu soxna may moom ña nga fa njabootu seex Moodu Fadal ña nga fa bu ñëpp ñu ci kër ga ak boolem doomi seex itam seeni te lépp sëriñ mooy jonjoob daara ji jonjoob metti ndax lii xew ci njàngale boobu amut moom bu jógee lay commencé daara buy buy buy fajar jotee amoon na sonal yées ñu sonal koor hmm. ba mu koy wut moom yee dongo moo ko taxoon wut hmm. te néeg barage la ne woon moom lay bës pour muy yee dongo yi hmm. waaye du ci nag mu soog a jug nag yor ak salaam mu dikkee nag comme fekk ngeen nelaw rek <laughs> ndox mi moom moo lay moo lay tëbal fajar bi boo lay commencé moom activité mu jàngale bi ko eh, defee def mu daa defee tam donga yëppay nodd dañuy di nodd di nodd ban di jeex mu def ab rëdd ca tànkam rëdd beneen rëdd ña mag féete ca rëdd ba ca kaw toog soog a dugg jàkka ji nga gën a nag dugg ci biir jàkka ji waaye gone yéen dañu ci jàkka ji dañuy nodd julli mu jógee ci jàkka ji nag dugg na ci daa jëm ndax ñu tàmbalee jàng amatu benn soxla du dem fenn kenn du ko seeti mu nekk ci biir dongo yi mu mu suba gis bu suba xawee naa ji mu tàmbalee déglu wet bu wet yi jeexee déglu na far jeexee mu jublu ci bind loolu daa jàngale jàngaleem itam nag boo mokkalul moom amul bàyyi waaye boo nee xam xel tam nag balaa dix heures nga mën a jàngale yëpp yaa moom moom sa bopp bis bi noonu laa jànjale moom waaye boo na xam xel tam nag ba ba minu onze heures ci guddi moom amul noppalu amul poche te toujours mi ngi toog amutoon benn soxla amut benn itte kenn du ko seet daara ji rek la ne dégloo daaraam dawoon jàng bind ci kayit alluwa la ñuy bind boo sëñ Modou Abdou sëñ Modou Mamadou Habib mi sëñ Jiiri Mam Balla sëñ Blaat Sox ñooñu sëñ Caxoon ñoom bindal gone yi xam ne ku ci bind lu mat daanaka fukki alluwa ak nangam yoo xam ne ñii sumal nga indi bindal ñu robo ñoo robo jàng waaye kenn du fa jàng kayit bind moom sëñ waxamu ko woon mokk alxuraan mokk gu wér tajwid ngi leen daa jàng foofu ba xewagut si sax fii te hmm. noonu la daa jàngale mokkal gu wér ngay mokk ko jàng ndax ba koy mokkal di ko tari lu yàgg yàgg juróomi sib di tari fukki sib di tari ñaar fukki sib soog ko beq ca beq ko yoon ca beq itam doo lu bari su mun ngay hmm. beq léeg du ko mat sax hmm. wala jël nga beex ko mooy toppal nit ñi tam nag bu takku sax day day dem ca penku ba penku bu ne woon ci biir moom sax maa ngi simb xaaral yaa toog te bu laal yëpp ku beex ko ne toppal la bu la toppalaay bu noppi sa alluwa nga dem jàng ko ñaar fukki yoon ñi fukki yoon ñaar mooy wax mooy wax nag la koy jàng daal waaye da dem fee toog mu jàkkaarloog yow nga jàngal lu toll noonu dërëd mokk moom xam na nga soog a tëj sa denc sa alluwa man maa ngi fàttaliku sama kaamil bu ñaareel sax ba ba fan yii gis naa ko ni ma doon jàngalee ni ñuy bind araf yi te loxoom la fan yii gis naa ko sama kii yi maanaam la xayin boo koy bind da def nii xayin moo ak laam alif ñoo bokk noo koy bind ngay bind ab sart ni sart man lay mel miim noonu la la jàngal miim itam mu ne la di nga ko jàngal moom bind bind da koo neexoon ku mën a bind da koo bëgg man dama la naan ma yow da nga ko bëggul waaye ko ko man ngay doon waaye nag man booba lool sànn ci loolu nag boo xam ne ndeysaan moom i bindal naan ma nii nii koy bindee miim koy def sànnee nun bind ko ñoroon lool bëgg ko lool man ko lool tam nag hmm. nga bokk yooyu lépp dafa da ci daa sonn lool affaire sax booy booy booy tàmbalee beq dañuy wut ku lay bindal ci bindu njëkk ba nga ko yor wi hmm. ngir bëgg moo tax ñu fa nekk daanaka ñëpp mën a bind ñëpp ñëpp daa da koo ñoroon moom bind ku mën a bind hmm. noonu la daa yare nag daara ji li muy xum xum ku ne loolu nekk daa ko xam te yàqutoon ci jaamu yàlla am dara bu yor yoree mu génn alxuraan bi kër tunis bi laa jànge subuhu jàng ko njàng mu mu dal soo ko delluwaat njàngale njàngale mi wird mu war a wird noonu takku saa ne itam kër ga boo sang yi ay mool la fa teg xam ne ci lay yi ñuy génn bu yor course gi hmm. dina taxaw fi lu mat quinze minutes di xool mbedd jóge fa déplacer dama mbedd yëpp amoon na muul bu fa tek bu tolloo mom ba mu ci taxawé tam fi la yam feng bi nga xam bo boo boo mënut xool lool da nga yaakaar ab la waaye noonu la meloon kër gi bu baax xam nga yépp xam tank yépp lu fo dugg dana xam di sangam sàngam yaa fi jaar mënoon sonn ci ñom lol tam nak daa taxaw ñepp fonk wàllu wér-gu-yaram lool lool sax bu nawet masaa dikk day jënd nawakeen bu baree baree bare ndax boobu sibir yi dafa bari te boobu tubaa amut dispensaire sax Mbàkke ko am boo bàyyi kii sax ma nga Mbàkke ak docteur Fall ñoom waaye tubaa amul da amutoon fajukaay waaye suba ku jot day jox mam bal la wala kenn mu jot sàll ak ndox dugal ko yëpp ci fi ñuy wax kees bu ndaw ga ndax am nga ñoom daa bari kees kees gu ne amoon a am na fa ndax keesu mango gi ndax kees gu ndaw ga keesu neex maye keesu xewar ga keesu dimb ga keesu daqaar ga yëpp amoon na si kër ga waaye booba kees gu ndaw googu ci lañ ci la ñuy dugal waaye mu ngi génn kenn ku di ñu jox la naa nga sex ko wan na ko naan jàll ndax bu la ko joxee doo ko naan ndax xarit noonu laa def waxtu nawet yëpp noonu lay noonu lay war la faj mi itam noonu la noonu ci moom meroon ci ñëpp nag moom ndax booba dadaa jël docteur yoo xam ne ay espèce spécialiste yoo xam ne dañuy jóge Ndakaar dimanche jot bu ndikkee Tuubaa mboolem mbokk yi ku wér boo amee wér da nga ko wax la dimanche na ñëw boo dikkee mu la docteur ba mu seet la bindal la ordonnance biir tabax bi dafay defoon benn pharmacien bu ci biir kër gi di jëndi garab di ko fa def mun la bëndee indee garab mu jox ko ñu xool ba xam am na ci pharmacien bu fa amee ñu jox la ko ba amut mu dimbale loo ko jënde waaw social boobu insaan iti maaxiya la woon yoo xam ne noonu la daa dimbalee nii xam ne ku wéradi rek da ngay dem ci moom yëgal ko ko am na docteur ba ay docteur yu bari yoo xam ne dañ fi ñëw par ñi par weer ñi par semaine ko defee boo ko waxee feebar ba kaman loola bu dikkee naan la bi sàngam na nga ñëw boo dikkee mu bon laak ko xam ne kooku dafa yendoo ba ngoon di consulter la ne ku amul wëllëre la docteur Fall Fall yaakaar moo yoroon sa sa waaye moo ne woon Mbakke ab tiyaan sax waaye daa doon wëllëre suñu son lool wëllëre yooyu tax na bi mu génnee àdduna suñu son wax suñu Abdou na ko nan nag ma ko bàyyil ma denc ko fii suñu Abdou si nangul ko ko indi ko ko bi ci boppam moo dem ci armée bi dugal ca boppam ci boppam dugal ko ci biir armée bi boo demee ba ca moo bi doon loxoom itam ne docteur Fall nangam nag la ci bind ba mool moo ko bindal ba fi ne ma ci pare woon ci foofu si ko dencoon kóllëre la am nga xam ne loolu bari na ñu ñu ñu ñu ko ñu nekk ci dëkk sax mënuñu am loolu moo dikkal boppam jullee ko boppam dugg moom ci xamel denc kon ko nga loolu kóllëre la kon ku amoon wëllëre ci diggante bi nit ñi ku mënoon a dimbalee itam la nag te ndimbalam nag kenn mënu ko xam ndax yàlla dogal na man jaar naa ca dafa mbëkk nekk tuuti yor naa maa nga si ba moom suñu son bi daa ñu jàng ci yor mbëkk ne yor yor yu magasin li muy dimbalee bokk yi wala ma koo def nit ñi nit tëdd day bàyyi ba nit ñi fatu soo oto bi yebal oto bi def ca la mu ci def ci ak suukar ndax ne ba demee ka nga koy jox duñ koy fëgg waa ñoom dëkkal duñ xam ne suñu son bi yéeneen na fi waa kër duñ xam ne suñu yéeneen na fi noonu la daa dimbalee ku mënoon dimbale waaye bokk mi bokk yii daan leen dimbale lool di leen taxaw lool waaye nag mën ngaa nekk ci kër sax doo ko yëg mm. ndax ndax ndax sutura daan leen ku amoon sutura ci boppam ci bëggul kenn xam li muy def ku la jël ab temps ci gone yi la tamit bu guddee moom ab doore daara gone yi fu ne ne fanaan waaye ndeysaan day jug mose day bàyyi ba guddi mu jug topp ëtt bi mm. fu gone tëdd mu daan la yee nga tëri ca ngeen tëri ci néeg ba waaye lu bàyyi kenn tëri ci witti ngir lay bi ak dara di la fekk dara topp kër gépp di leen gis te li muy yendu yendu ci daara ji nag léeg-léeg bu guddee lay génn nag dem saare ji ba dem jumaa ja dugg ci armée yi ca ba jamono yooyee seeti bokk yi fi nekk yëpp ñaanal leen nga xam ne daanaka day fanaanee dox ci ay saare ci guddi gi ak bokki bokki bopp yi nga xam ne bëgg leen gis ar leen gis dellusiwaat te bu fajaree bu xasee ba jóge ca jàkka ja moom ngi ci daara ci ba keroon ak gee ginnaaw gee amatul temps te booba kenn du ko set moom du seti kenn daara ji rek jàng jàng ak jàngale jàng ak jàngale rek la daa liggéeyee dundam dëpp ci yar ak defar la ko def waaye bëgg xam-xam nag ak dimbalee dëkk bi bokk na ci li li ëpp solo mooy sëñ bi Mbàkke mi ngi indi ci dëkk bi ginnaaw yàlla sëñ bi ñëwee ci Tuubaa suñu sooy bokk fi indi bokk fi indi daggal ko foofu ci pencam mi kër nga bëgg nit ñi ku jàng arxaan bu noppi man a jàng ci mu xam-xam ndax booba ma nga woon bul Cheikh Amadou Basir moo ko yóbboon foofu moo koy jàngale ginnaaw bi Cheikh sàkk ba indi ko fii mu koy jàngaleel nit ñi ndax ne ko jàngale waaye waxu waaye yëmatul ci moom nag dëkk bépp nag di ñëw ci sëñ bi di fa jàngale si loolu rek kenn amu payam ndax mboolem dëkk bi ñu fi jàng daanaka ñëpp jaar nañ ci loxo si Abibu te loolu ci ndimbalul Cheikh Sohaybu Mbakke la mu doon nit ku yaatu woon nag ku ubbi ko koo xam ne ñirut ay murit sa doon ko daan seet si suñu Abba dafa daa ñëw di ko yend si suñu Adi dafa daa ñëw di ko yendu si buñ masaa ñëw ndeysaan day jëli suñu Asan Buso ca wooyu suñu Abibu wooyu suñu Cheikh Sey comme borom xam-xam yooyu ñu toog bokk nekk ci saal bi toog ci suuf joxtaan ci xam-xam rek ba ngoon bu julli jotee ñoom lay yebal ñu julli jiite jàkka ji fi eh, ñu Abbas Sall bi nekkee mooy jiite si auditeur bi ñoom lay yebal ñu jiite ñu wax ñu ne ñëpp dem julli ngir bëgg yaatal ak xamal leen leen fii mooy seen kër kon noonu la meloon nag bokk yëpp nag diggante moo waa ko Sëñ Tuubaa itam ñëpp ñëpp ñu fa daa fekk ñëpp ndax tool bi mu nekkoon di ci bay day toll Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom moom la moo moo ko gën a ñor ci tool yi muy jàng ak yar ca seenu njaboot ñoom ñëpp mu nekk leen ci moo taxoon ñoom ñëpp nag nanguloon nan ko muy toog ñu koy fekk si si suñu laa daawut ab ay bis nga xam ne du fa ñëw suñu du xaar yu daanaka da am ñetti weer yoo xam ne yendu suufa alxames la fa daa ñëw moom day dàkk bis yoo ne du jàngale digganteem suñu saa bi itam noonu daaw fa jukk suñu saa bi itam daaw jukk jàpp naa ne fi ëpp ci kër yi kër yi laa ko teg hmm. waaye noonu la noonu la soxna may daa soxna moom yi moom it daa rek fa la dëkkoon soxna may noona noonu soxna benn gaabu noonu Cheikh Mamadou Mourtala noonu njabootam fa fa doon jànge mu fa daa ñëw di ko seet si seqoor ñoom ñëpp ku ci ne xam ne li tool bi mu nekk yow la ci nekkal sëñ Abdou nag moom moom dafa yàgg danaa wax ne moom ba ñuy jàngalan meroon noonu ba mu nekk tundoo di la ko daa gane si daana wax daana ko gane si léeg-léeg bu dikkee li mu ko ganele mooy caaf gerte rek la ko daa ganele booba wax boobu jamono neexut muy ku amoonu doylu ca mën a muñ ndax bi muy samp daara ji 1945 boo réew mi na xari na dara amut mu xëy xëy dogoon bàyyi na tukki toog ak i jafe-jafem wuteetul dara fenn lu mu am jàpp ak mbo ak ak ak i dongaam yor mbooloom boole ci nag bëgg leen a jàngal bëgg leen a yar mu loolu ko amul jëm amoo ak dogu doo ko mën ndax boobu fekk dara tukki daa dox réew mi fi ne na foo ko masaa wax rek mu doo mu wax la garab ga fa nekk ci penc ma wala barab noonu la meloon daa dox lu yàgg daa tukki lool sax muy toog toog dëkk boo ko wax mu wax la fa ay mandal Karim génne àdduna fekk ko fi ba dikkee leneen fas lu gën a Tuubaa génnaatu Tuubaa ba nu fi jógee daal di nag taxawal daara jooju rek jàngale rek ak yar amul benn liggéey yëngatu àdduna yëpp bokk ci man la fay nekk lépp fukki at ak juróom-ñaar am naa ko ci bu mosuma gis ci àdduna yi du président du ministre gouverneur laa fa am gis moo daa def Corée ñëw fa sa ba mu fa ñëwee ban foto ko ca la ko foto boobu gis waxoon waxaa ñëwoon am fata ñu fata ko ci calaa ne doy na nangoo tur bu ñëw fa benn autorité boo xam ne gisaat naa ko ba la fa nekk fépp amut muy ku fonkoon jàkka ja waxtu wi waxtu yëpp moo koy jiite waxtu yëpp moo ko daa jiite ci lay jiital ñëpp ñu julli jiitam bi mu demee ba indi fi sëñ bi ba doon la bàyyi si bi jiite waaye teewul day julli ci jàkka ja moom waxtu moom ci jumaa jël ko jàkka jël ko jëli waxtu yëpp waxtu ajuma itam du ko tarde ñun booba ajuma rek lañuy xam ne suñu soñ bi dana gën diggante day neex ci yow lool ndax da nga am liberté bu daa julli ji dañuy wut nit ku koo xam ne day toog ci penc ma di xool oto bi ngeen liberté ngeen soos bu ne boo seenee ne ma nga ñëw nag ñëpp gaaw duggaat ci kër gi toogaat kenn du ko romal loxo neen maanaam boo masaa di masaa toog ci ëtt bi sax ngay jëm fenn ngay jëm ci kees gee ba korom da nga yor ab téere wala sat la wala dara waax waax mu tàng mel na ku nekk ci dara waaye no loxo neen nangu bu lay séen ko yoroo son loxo neen di def du dox mu fàtt sa ne la demal def nangam nangutoon kenn nekk ci loxo neen benn ngay jàng baa ngay bind guddi gi itam daa dajale doo ngay ñu def sikkar timis ba gee sikkarullaahi lañuy def ndax bañ bañ ko neenal waxtu dara si ñoom amutoon nag ay jàngi maraax ak jàngi jël mu amuñu ko moom moom daal jël ngay yow tàmbalee jàng waaw boo xëyee jàng wet tari ko ñoom bu wari jeexee mu tàmbalee nafar yi bu fekkee ko ne xam xel nga ku mën a jàng nga xam ne tere sa nafar ñu teg si bind loo mën di bind nga tari ko bu midi jotoon nga mokkal na yaa ma la noonu la noonu laa jàngale moom waaye bokk def ñi xaaj ne da ngay jàng lii bu timis nga jàng si wala bu tisbaar noonu la noonu la système bi wala yor moom waaye booy waaye booy mokkal alxuraan booy wàcce na di mokkal alxuraan ndax bala ngaa wàcc dana fekk ngay tari juróomi sib ñaar genn xel ñaar fen moo tax booy wàcc rek daa tari juróomi sib ngay def ci saasa mu dem ba des waa def juróom-ñaari sëg gën a wàll boo desee def fukki sëg moom la jël bind roba loolu <laughs> loolu moom sax bopp waaye foofu moom dana am ñu am na ñaari bind jël bind roba nag moom dana fa waaye boo wàccee moom directement juróomi si ngay jël boo boo dellusiwaatee mën na jël juróom-ñaari si boo des ma fukki si fukki si nag mën nga cee yàgg nga yàgg nga yokk soo ko tàmbalee beq beq mi itam day yàgg ndax xam nga ba dee beq sumul kenn du xam koy yàgg te léegi moom beq loolu la ñaari yoon waaw mu ne ba rafetut ba rafetut da nga beqaat beneen hmm. soo ko bind kaamil kaamil itam lu bon bon na ko bind ñetti yoon foofu foo nekk rek bind ko ñetti yoon noonu alxuraan kenn du jàng xam-xam foofu moom bala ngaa dal xam-xam mooy da ngay dem ba mokk alxuraan daanaka boo demee bay jàng juróom tere juróomi nag mu taral daal la sa saar jamono yi ngay beq rek ngay bind kay moom yaa ngi jàng xam-xam kon boo bind kay rek dana fekk si ay Ibnu Malik dana jàngalee waaye jam jam jamono yi ngay jàng alxuraan képp la jàngalee kon noonu la daa doxale ay mbiram ku bokk fonkoon ak bokk la lool boole nit ñu bokk da ko daan neex lool lool ak di nemm ko ay bokkam ku fa masaa ñëw ku ne ci bokk yi day bég lool ubbi la boppam lool xajal la ci boppam lool noonu la daa fonkoon ne ku wormaaloon ñëpp la gone ak gone yi nga xam ne gone yi bu lay jàngal jamono yi ngay jàngal moom gaynde lay doon waaye bis ba mokkale day fekk ci wetam di di yow jàpp sam nopp man dema ba piriyaan booba piriyaan laa toog li day toog ca tànk yi di képp sa tànk yi sa sa bakkan wala sa nopp di faw yow nga xam nga xam ne nga xam la ne waaw kay ngir ma noonu laa def saa boo mokkalee alxuraan saa boo taree rek day daal teg fetam boo nee nag koo xam ne nangu ngaa jàng moom day def xaritam def lu wéttal hmm. bëgg lislaam lool lool lool bëgg sëñ Tuubaa lool tam nag lool gëm sëñ bi doon tay bu magam yépp mu def leen ay kilifa bu wér a du def dara ca yëguñ ko ca tàggu leen ci mboolem ñi ñi mbokkal sëñ Tuubaa bàyyi leen ak bu baax ay leen xel bu baax a baax góor ak jigéen nag ku ma masaa ñëw ku ne day neex ñun bu suñ bu nee soxna ñëw na wala soxna moomi wala am xarit nga xam ne boobaa moom day teg fee daara ji nekk ci ñoom noonu la bindoon bàyyi aajum yëpp bëgg leen lool sopp leen lool lool ku bañoon ak réer la bu sañoon ñëpp jàng moo tax mu daa indi suñuy yóbbu di ko jàngale di jëli suñuy asan ndax suñuy yóbbu boobu koor du jàng du jàngale waaye bu kaw jotee day jëlee suñu asan gere mu ñëw di jàngale foofu ñu daa jàngale itam day bëgg ñu am-xam di bind danaa daa digal dara indi dara yut ko yut ko sëñ bi wala am na demoon soxna dañuy def xam ne ñoom ñëpp dañuy taxaw foofu ku bind dara jàng ko ci kanam ñëpp noonu laa def maa ngi fàttaliku sax man mii ci si saqasi demal na Siiri Mbàkke na bind na ma bindal dara ma bind ko ma bind ko yaakaar ci Tuuba dëkk bi laa ko bindoon jox ko bi moom ne bind ko ci sëñ bi mu waxaat moom mu bind ko ci yoonu mu mu bone ne ko na bind ci bu bind bu bind ci yooyu nag mu ne mu fekk waaye bi laa mu def mu Tuuba bi sama dëkk sëñ bu ci ne ne boo ko ne na na seet la neen nag na def moo tàggat ngir bëgg ngay waaw waaw ngook ngook noonu la bindoon bëgg xam-xam lool bëgg ku lool bañ ko bay tappale lool daara ba xam ne yu muy am moom du la du ko def bàyyi fii ab tàngal wala passe yónni la xool ba xam ku jub nga ku jubul sànni fee ñaar sàngal wala ñaar parce que ko fa génn la ci néeg ba nga ba ab dong bu bëgg rek moom la la romb rek waaye bokk laa yow ma xam ne yow ci wax dara nag day nag rakka la gis nañ lu ñu jariñ waaw lu jariñ nga ba gis bu bu lay recevoir ko am cofee la ngi ku la ku la lu baax rek la ku la bëggoon yoon képp ngi nii nga xam ne noonu la bëggoon ku jub bëggut ku dëng bëgg kuy njàlloo moomut bëgg lool ku sawar ci at njàngu alxuraan ak ku sawar ci njàngu xam-xam loolu moom ku mu doon dalay daal fonk def la xaritam bëgg ku mën a bind alxuraan loolu nag moom moo mën bind moom ndax mbind moom yàllaa def mu bëgg ko moom dafa bëgg ko ko ko daanaka yoon wi sax ñi si mbind mbind yëpp dana ko daa waxtaane Cheikh Moustapha ak sëñ Massamba ak ñu ñu bind da nga fàttaliku bis moo koy nuyoo rek sëñ bind Mataram Guède ko sëñ waxaat dafaa yenn si ma dikk na ko Matar Aminta Ndiaye te mu ma daa bëgg a siyaare mu ne ma ba demee ne nekk Matar bakkan ak mën a bind ak mën a bind moo suñu bàkk faa yemee de ñu mën a bind dem hmm. xam noonu la xamee woon ñu mën a bind lool lool lépp waaw daanaka lu bari ci yoon bi sax da ko daay dote daa am carnet boo xam ne ñu juddoo ki xew ak yépp da ko daay bind kan suñ fallu daana wax na yu bari moo ko yore waaye judd ñun ñi ñëpp yaakaar naa kurti dana ko am sax ndax moom daa farloon ci loolu juddu ngénte lu mu dem ak da koy bind wax dat ba ak yi xew ci yoonu mu wiir ci yépp da ko daa am rési bu mu ko xam ne ci da koy def noonu la ko la ko daal di fonke daanaka nit ku bëggoon kii bàyyam ginnaaw yàlla suñ suñ soñ boo fa bàyyi moo ko téye bi faal jógee Mbàkke seen ubbi fii nag gën a dispensaire jamono suñu blaat ci la suñu soñ bu sàkko nag mu ñëw fii hmm. ngir moom waaru médecine da ko ñoroon lool gis nga sax téere mi li mu ciy bind ci wax lu am solo ak téereem bu mag boobu nga xam ba fim ne ñi jang ñep mëna ci jang ndax war na lo xamne man nga jang ba jéxal téré yi soo ko gis faw ba delloo ci téré rek da nga koy gis téré bi xortu ay ni da ko ndek na ko bind nak bu yàgg da koy da ko yokkat nak am ndek bind toltoon nii bo bo la gën tangi itam nak <laughs> gina gina bi da ko bindaat na yokkat yokkat yokkat ko ngud ak yeneen téré yu bari sax yu bari yo xamne ñaan yu am solo ci nak da ci am yoon sama xamul tax tasaaroo waaye téere yu am solo la ab bindkat la woon waaye daa bëggoon xam-xam moom daa bëggoon xam-xam daa borom xam-xam yi ku fa saa ñëw da ngay toog ak moom ni ñu toogee lay toog ne san toog suuf di discuter bëgg leen lool sëñ Mbalaay Busa sëñ Asan Busa ñëpp ay xaaritam lan lu leen daa indi këram toog di gëstu di waxtaan ak ñoom ab sër sër dëgg la woon moom ku xamoon réew mi sam la daa xam histoire xam taarixu réew mi xam taarixu nit ñi xam réew mi ni mu tëddee ko xamoon lool ndax yàlla da ko def mu mën a laaj lu ne da koy laaj boo ko xamul sax mën naa trompé dana xam dara ba dana ko laaj loolu sax ab gëstukat la woon mu xam bari lool muy ko amoon yërmande lool ci doomu aadama yi ci dimbale leen saa bu xëyee am na loo xam ne da ko daa dimbale ñu fay ñëw di sàkku ndimbal waaye fonkoon bokk yépp nag waaye ñun daal ñëpp ko war a sant am na jamono yoo xam ne moom sët Sëriñ Tuubaa yëpp du ma ne ñëpp fa ña nga hmm. mu jor ñu ca booba jamono neexut waaye ku wér di moo lay faj faj bu weeru bu kori dikkee ak tabaski mboolem daara ji dana leen xotti li mbubb wala ñoo bëri ñépp lay jox mbubb bu ñu yóbbaale seen kër bu kori ak tabaski ak magga ñetti ñetti feet yéen daa feet ñoo fa nekk ñoo fa nekkoon ñëpp moom la ñëpp ñëpp moo ko moo ko yoroon moo ko kenn ku fa indi sa doom daa dara amutoon lépp moo ko yoroon te boobu jamono jamono neexut de neexut ci feet yi itam jël yére yi ngay ko ne ma ma ci yow ñëpp mosul yoone kër ga kenn du ko génnoon maanaam kees googu njëkk googu bu la sëñ bi gisee am ngay duma ndax ab taxawal la. ab taxawal la ko tuddee man ko tuddee ngay taxawal la yow hmm. kër gi tam buntu kër moom doo moom saa boo génn xamal ne moom te kaw sang bi nga jaar mbaa nga bëtt waaye buntu moom. te hmm. ku ko tëj jamono yi ne bi ñuy dëkk dëkk Tuubaa gi ak kese bu xaay boo kori ak tabaski màggal ngay ñëw ci kër gi. dafa ñett dafa jaar mukk boo ñibbee kori bala ngaa dikkaat tabaski ba tëbët màggal ba màggal ba màggam lu yàgg màggal ba kori kori doo jaar ci kër yi sañ doo ko sañ hmm. waaw doo ko fii sax boo fi diggee moom sëñ bi daal lay moo tax kër gi kenn dawul gën dem fenn moom itam yor lampam leer boo xam ne léeg-léeg xam nga gars yéeg seng yi waaye nopp yi neex la yoo xam ne bu seng bu yëngu rek bu ne tayee boo ne seng kaw seng bi mu seen la loolu ak xàmmee la am da ko wax tànk tànk daara ji bari bari mujj kër ga booy dox da ngay samp <laughs> boo foo wër booy jaar da ngay samp tànk ndax bu sa tànk tegu moom dana xam ne yaa fi jaar hmm. Hmm. waaw moo tax gars yi dañuy samp seeni tànk wala ngay dox di ko di ko far hmm. te kër gi daa bari fu muy ay moraax fu mu mën a fu mu mën a serwee tabax boobu tabaxam boobu ay constat yi fi nekk doxam fu mu fi taxawee ci kees yi itam bu ci ne am na am na fa bën bën yoo xam ne yoo bàyyi yoo xam ne ca yére te doo xam fu mu fa tolle moo tax daanaka kër gi foo ci dox fa da ngay mel ne yaa ngi ci dansé <laughs> te daanaka xam naa caméra surveillance. daanaka moom la nga wax ba daanaka surveillance ndax foo jaar rek xamoo ba xam sëñ baa ngi lay séen am seen ndax boobu tabax bi côté bi am na ay costra côté bi am costra te doo xam doo xam fu mu nekk toll la bu dee ci biir doo xam fu mu toll bu dee ci yaa ngi ci biti itam kër gi daanaka dafa wër day yor course gi bu fii cinq minutes taxaw fii cinq minutes di wër te booba dëkk bi tabax bi daa xaw booba seng yi xam nga daa gàtt bu dee guddi itam bu taxawee ci mbaarum toox moom mu ne tay booba mbeddum mbeddum mag moom da ngay ba ca kaw bu nekk tay nii itam ngay séen fu mu ci taal te boobu loo wax ba kàddu gi lu mu xam ne mu déglu mu déglu la nga xam ne daal moom dundam bépp ci seroin leen leen dongo yi da nga naan kii du tal boppam gone yi ñu ngi ci nekk biir suñ daara yi itam néeg yi da ngay jékki mu nu jox ci néeg rek wala kees gi mu jékki-jékki nag jox ci kees waaye mu demee ba loolu sax mooy mu ba nga xam ne sax moom saytootul lépp dëgg waaye teewut noonu laa daa def day day bette day bette wala mu nit wut nit koo xam ne si itam da nga koy ko fay nekkal sa gars yi duñ la xam eh, moom moom nga contrôle moom daal moom neexutoon a mucc <laughs> ku amoon ak dogg ci mbir la itam nag dongo dongo bu bu a të ak bu dër bopp moom loo koy daal la ko daal moom rek nekk ci yow du la bàyyee kenn moom dara la boppam ba keroog yi gis laa def moom def itam yëpp defar ku war a baax daal bëgg a bëgg a nekk saan moom dana fëtti ko jëflante yow ba ba nga baax waaw donc loolu loolu muy liggéey bu am solo boo xam ne noonu noonu la bindoo woon. ku wisaare xam-xam lay tam ci àdduna wisaare xam-xam mooy sax ñun ñëpp rek dana am ko néew ca ñun ñëpp nag la bëggoon ci ñun sax amu ko ndax daa bëggoon ñu nit yi xam-xam ñu fonk xam-xam topp ko xëy na dama bëggoon waaye leen leen leen am nag sant nañ ci yàlla bu baax sant yàlla bu baax ndax bu toon bu dul ko doon moom mm, du nu mel nii te gis na ñu bari ñu fa jaarut nga xam ne wax yàlla ñun sant nañ yàlla ci jaar gan fa jaar hmm. ndax defar na defar na sunuy xol defar na suñu xel ba fi ne dara jaaxaluñu dara réytu ñun ndax ni tolloon ba noppi wàccoon ak tolloon ñun suñu sooy bu dee musuma gis mu tëdd ci mu nekk bu tàngee ci ëtt bi lay fanaan bu seddee ci mbaar mi waaye du tëdd ci mukk musuma ko gis man te yàlla dogal na man daanaa ko fa bés naa ko fanaan naa ko bés fanaan naa ko ëpp waaye ci bitti bitti bitti lay toog lay fanaan ba bu nafila li muy nafila ba noppi tëddaat bu njël jot mu jógaat defaat ay nafilaam ak li muy wér ku fonkoon wér la la lool hmm. suba geeg ngoon geeg guddi gi moom fonkoon na wér lool fonkoon jàngoo xam ne moom mosu ko tar dem suba xam bu mu daa def moom di daara ji xat xat ak li mu daa jàngale moom am na heure boo bu jotee day dem fee moom jël kabiram jàng fa loola ba noppi soo ko dellusiwaat ci jàngale mi xax ci gàttal lal eh, eh, tënk la ci ci ci moom sun lépp day suñ soñ bu ñun moo nu yar moo nu jàngal moo nu sampal kër moo ñu tudd kon nag kenn ëppalewuñ ci moom nit ku nit ku ku liggéeyal Sëñ Tuubaa la ci njabootam gi daal bu wér a wér ndax mboolem ña fa jaar ku ne ku ci ba nga delloo fa nga jóge am na loo doon fa nga jóge te moo ko def ci yow walla hmm. nag kon mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi ñu ngi koy sant waaye nag yemutoon ci ñëpp maana seex si xama ko mënut lim waaye ñëpp ñëpp ñëpp fa jaar ay ca jamono yi ay téeméeri nit ñoo fa nekk ak i juróom-ñaar fukki ñoo ñoo daan nekk kër ga ginnaaw bi nag la sëñ gi ñëw ñu jox ko dong yu bari ñu daal di yóbbu feece Madiana foofu ñu ko wax ñànk umbi fa daara dafa yóbbu ñu bari ñu tën ñu tën jamono yi sax ñu fa la yóbbu ñu tën mbokk yi nga xam ne dañoo xaw a të te boobu amatul jot gi mu ko bëgg a saytoo mu mu daane si si sëñ Gueye yóbbu fa ginnaaw ba indi fa Abdou Khadir ak suñu Omar Sey ñëpp moo leen fi doon ngir ñu jàngale alxuraan ñu ñëpp ñu jàngale ñoo xam ne mooy indi woon waaye teewul nag daal ci kër gi moom Moustapha Moustapha kii sa taxaw ñu demee ba génne ko foofu ci bitti suñ dan bu sa moo ko yore foofu nag بنجيني مغيرة آه، مريم سنتن كباخ سنتن كباخ باخ من سنجيل أبلاد ما ما مجرن ما أكسين يرسان مي أكسين باش ما أكسين سريو أكسين أبيب ما أكسين عبد المر لكن نيل نيل عندك تامر يا جانغر ما أكسين جيل لك أبو مبكر ما أكسين بلاد أنا أبو جبي ما أكسين ما أكسين فارن جبي أنا لا بيوكل بيوكل بيوكل xasida yi dama fonkoon na ko doon def lool waaw yàlla yàlla dimbali na sama xasida yi mujj di jàng maa ko bind sant naa ci baax ndax bi bi bi moom itam Moussa xasida moo dikki dafa ab liste boobu ñibbisi naa sax moom ne ma sëñ bi dana ko ko lii ma ko ah, ah sëñ moom bind moom man man ma bind xanaa damaa bëgg a dimbali rek mu jox ma liste mu bind ko ci ak kayit kayit gu wert yàlla mujj bi ma bi yóbbu ko mu joxaat ma liste boole ci asmaul badr ma dikk ne ko ah asmaul badr mu dama dama dama dama dama ko ragal lool wax dama dégg ñoon da diis man dem joxoon ci ndigal nga bind ko jàpp naa jàpp naa ci mujj jàng si la moom daa fonk jàngum xasida lool sax lool waxtu yëpp la ko jàng yooyu yor beeg ngoon gi bind naa ko ci bari nag mën a baaxee yooyu ma doon bind loolu. takkatuma <laughs> ko xam naa am na war xam naa xam naa ci benn ay war a xar kaam jaagu ma ca de xam naa ne. Hmm. ak ak waxtaan ak xanaa bis rek hmm. sii rek faat ak ak kii tey faa ak jaatu ma yooyu moom ci xam naa ne moom hmm. ak asmaul la ko jàng jàng moom moo jox téere moo ko sottee sax. Moustapha sax moom moom boo sax ñu dinaa ba ci kër gi ma nit daa tuma ba léegi de. waaye ku fonkoon njàngum xasida la man lu fas yéene nag fonkoon na ko lool moom. Mm, da ko daa jàngalu këram moog si ndiit guddi gu seetlu naa ne ku ku sanc kër itam daan la yebal daa mag ñu ko daa jàng kon daan la yebal sa ko mboolem ko loolu fas yéene am boo xam ne ay mag lañ woon Ibrahima ñaan ñoom ak saa kuy gis naa ne daan la yebal ñoom yéen jàngal la fa kuréel loolu fas yéene ci yoo xam ne moom. ma ma waaw daa am daa jóg neexoon nag moom. jàngat xasida bi ndax daa am ñu fa jàng ko lool ki ci des Ablaye Seck ko def ñëpp guddi man na ko naan siise fàtt naa ko kooku itam bu yàgg daa dafa jàng sindi yi deeg ay xasida guddi waaye xasida moom tubarkal fonkoon na ko lool lool ba tollee ci digg njàngale moom xam naa amatul njëkk waaw moom waaw waaye mujj moom bu ko fonk lool sax yëpp da ngay di wër da nga fekk mu jàng xasida lool moom daana woo góor Seex Jaane mag la woon mokkal way wala hmm. woo mu di ko jàngal léeg sax mu yebal woo woo yi bu dee yi nga xam ne da ci yaddaate ak yooyu tere nelaw guddi yooyu mu bu mu jàngal ñu ko ñu koy dëgg nga nga yi nga xam ne dañuy tërbie waaye ku fonkoon ku ci am boobam suñ mbay sax xewagul nii waaye moom yàgg ko fonk moom moom daka jëkk da ko daa jàngulu di ko déglu di ko fonk ay waayam lool mu fonk la moom ko nii ko laa ture jànge waaye bàyyi jaane moom yi ko daa jàngaloo ko ba Cheikh Diagne mu dëkk foofu ci atam suñ mbay jaxate ko tërbiye jàng bu neex la ko daa defal sax léegi suba teel bu ñu jàng ko yow mi nelaw guddi yooyu yëpp daan daan ko jàngloo suñ soo bu géej la goo la te suñ dund bépp nag ci foofa la ko defee seen du xaalis moom li xam ci moom bëriwul de xam ci ndax koo xam ne ba ngay juróom-ñaar nga fa jógee bi dellusiwaatee amuñu amuñu moom ñeentaat juróomi at mu jóge fi suñu dund bépp këriñ sama borom ko def foofu ko foofu lan màggee fa lan defe lépp fa jànge lépp bu dee xam-xam fa lan ko jànge bu bind kaamil yi bind yëpp kon ñun foofa la dëkk fii dañ fi gane si waaye këriñ sama borom dëkk bi nga xamee ne ñu ngi ñu ngi nekk seen këriñ sama borom ba jàng ba eggal sëñ Abdou Khadre nangu woon a jël si suñu sëñ bi duñ delloo nekk bolokaas ba foofu bolokaas foofu ca defatuñ fa dara daa gën a suñu sëñ bi ndeysaan wax nibi leen suñ bi itam duñu wax jël si leen am ba yàgg mun ñëw yebal mu yebal ñu suñu dem leen suñu yib waxtaan ak moom suñu yib nag ak bër la boobu sax suñu waxtaan ñoom ci noonu xam ne bu ngeen demee daal dooru ngeen wax suñu bi dara waaye man ngeen toog rek waaw ndax sëñ moom du wax ngeen dem waaye bu ngeen demee rek déedéet ngeen wax seen affaire ñibbisi na ñibbi nañ waaye bu toogee itam moom xam naa du leen wax dara. naa ma ne ma di nag di ko def naa ban bëree tàggoowun bëgg ko dama delloo woon bëggoon ko ma dénk rek bindal ma dara ma gis naa ne bu njëkk. ne daa wàcc dañ daa bindal dara wax ko mu ne ah, ma ma jëru ko de mun nga mun ngeen dem rek seet li ngeen nekke woon fii ngeen wéy ca doyuloo sëñ bi ci jaamu yàlla ca ba bu leen bu leen ay tabax bàyyi oto bàyyi yëre yi rafet leen seen jaamu yàlla itteel ak sëriñ bi te fexe ba lii seen ndam mooy nit nit nit dara nit dal nit ca Ndakaaru wala Casamance xelam ne yarar ci yow yaakaar ne bu la gisee loolu yàlla saafara neen loolu mooy seen ndam te loolu nag leen koy mooy sax ci njub ak jaamu yàlla waaye ay tabax yu rafet ak oto yi rafet ak soxna yi rafet ak mbubb yi rafet du seen ndam seen ndam daal mooy nit nekk fu sori dara jot ko xelam ne ko diir sàngam mais bu ma bu ma gisoon bu ma ñaanalee sama aji dana fayu ci loola nag leen koy may moom jàmm sax ci njub ak jàmm yàlla ñu ngi leen am mbégte bu baax di leen sant ci seen tànk yi nag lu am solo la waaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin